فلتغتسل كل عن غدا خدمت سيد البراء يا أمنا والأنبياء والأنبياء من همنا قد الصلاة وسلام أبدا لهم كما زيد من لم يهدى إلى النبي def tawfiq mën nañ dem ah? bismillah waaw yow mi nga xamantene da nga bëgg fo tollu di am xéewal fo tollu di am xéewal dépense di la yomb lool sax tiet bokoy liggéey di nga njabot waaw waaw da ngay bi bind ay bi 174 surat Isra nek verset 6 mom di xey sax di wir de 174 lu am solo la mais bu dee yoon mi da ngay bind ay bi 174 nga bind khatim bi nga def fi li nga bëgg li ngay dundé yépp nga def ko fi nga def ko safara diko sango chaque jour nak da ngay de ay bi 174 de fi ji di ha 313 xayu xayum 313 wallahi dundu dana la yomb de. ma jaaraat ci wa amdatnaakum bi amwaalin wa baniina wa ja'alnaakum aksara nafira mu ngi soratu Isra aya 6 waaw <laughs> lii rek 246 la lay jox soo jëlee wa amdatnaakum bi am amwaalin nga jël wa yumditkum bi am amwaalin nga tek ci wa ja'altu lahu malan mamdudan yaangi am 1161 latif latif la lu graw la yow mi wirde latif jëlal loolu bindu ko saafara yow mi wirde 1161 mais taxuma jog li ngay bind 174 def ko saafara bind khatim bi def fi sa soxla di sango say bo xey bu julli ba pare nga jublu penku jangal ay bi 174 jang fi jidha 313 xayul xayum 313 dépense dana la yomb yow mi bëgg lo dundé dépense dana la yomb yow mi nga xamné nak da nga bëgg vivre heureux xam nga li wax vivre heureux wala nga am la paix intérieure kenn la sonal da ngay vivre heureux bindal khatim bi bindal ma khatim bi nga def ko al khamis ba khamis nga koy liggéey nag khamis ba khamis nga koy liggéey ya ngay jang suratu yasin bo sangoo sa safar ba pare nga jang suratu yasin bo agge ci salamun khawlan min rabbin rahimin nga jang ko 1058 amay deug de so defé salamun khawlan min rabbin rahimin 8 fois nga jang ayatul kursi ñet yon nga def ko 80 fois nga jang ayatul kursi ñet yon nga def ko mille fois nga nga jang ayatul kursi fukki yon nga jang ñaan gi ñetti yon fa nga ne wa am tasu al yawma ayyuhal mujrimuna alam ahidi ilaykum ya bani adam ba ca ilahi turjaona ba yasin ba jeex nga jang ñaan gi mom tamit yon alxamis ba alxamis nga koy liggéey boo ko ñemee ay waay boo ko ñemee <laughs> yow mi bëgg a vivre heure <laughs> da bëgg a vivre heure nekk ci jàmm kenn du la sonal du bët du làmmiñ du wopp feebar bu ñëw mu dax ko seetaane jinne bët bu ay defal li alxamis chaque alxamis nga def ko ma jaaraat ci jàngal suuratu yaasin boo àggee ci salaamun xawlan fekk bind nga sa xaatim nag def ko saafara sangoo sangu ci naan boo jullee ba pare nga jàng suratu boo àggee ci salaamun xawlaan min rabbin rahiim nga bind nga wérdu ko 1058 waaye soo defee 8 salaamun xawlaan min rabbin rahiim da ngay jàng ayatul kursi ñetti yoon nga def ko 80 fois nga jàng ayatul kursi ñetti yoon nga def ko 1000 fois nga jàng ayatul kursi ñetti yoon boo paree nga jàng ñaan gi ah. non sal mil la wa bo jafé 8 ah da nga jang ñett kursi nga def 50 jang ñett kursi nga def 1000 jang ñett kursi muy 1058 ay salamun xam bi darbin dara min paré nga jang ñaan gi ñett yoon nga yasin bi nga jang ñaan gi ñett yoon wallahi al azim di <laughs> nga vivre heureux non ñaan yi bokkuñu waaw ñaan yi bokkuñu ñaan yi bokkuñu allahumma inni as'aluka allahumma inni as'aluka an tusaxira lii xuddaam hazihi sóora hazihi ayat asharifa salaamun xawlan min rabbin rahimin yaatuni bi kulli ma uridu bi xaqi ismikal karim salaamu rabbu arrahim rahman rahim alxaqu alxayuum alxayu alxayuum alxaqu alqawiyu alqaribu alwaliyu almuuminu albaariu alxakimu albaaxi alxasiib annuur asaluka ya allah ya allah ya allah bi xaqi salaamun xawlan min rabbin raximin nga jàng ko ñetti yoon nga àggale suuratu yaasin bi moom jeex nga indi ñaan gi yaa saydi salaamun ala minka anta saydi sawa sawaun hindaka sirri wa jahri tasmau nidaan wa tuxiibu bi fadlika duwaayi ma xawta bi nuurika zulumaati wa axyayta bi nuurika maytana naasiyati bi yaddika sam'i wa basari wa xalbi bi yaddika malakta jamiil wa alayta xaraaran wallahi azim boo jàngee lii laa wax alxamis ba alxamis nga koy def alxamis ba alxamis nga koy def yow kilifa gi sa kër foo mën a ne yàlla da lay womala jàmm ngay am wopp feebar seytaan dara doo ko gis dara doolu la jël asalaamaaleykum wa rahmatullah boo joxee naafila ñaari ñeenti rakka sax ci yow xam naa boo ci saxee moom sa sa aajo dootu ko xam soo saxee sa aajo kenn dootu ko xam dangay def faatiya benn yoon boo demee tey tàmbali ko tey nga xool boo xëyee ngaw ngaw ngaw boo xëyee di nga ma woo da ngay def faatiya 47 Ikhlas 47 ñetteelu rakka bi Fatiha 49 suratu Maawuna 49 boo demee di nga ma suba di nga ma woo Maawuna <laughs> boo defee Fatiha nga def Fatiha 47 Ikhlas 47 jël Fatiha encore 49 suratu Maawuna 49. yow <laughs> di nga ma woo de sa soxla kenn dootu ko xam sa soxla kenn dootu ko xam laa la wax kenn dootul xam sa soxla diw dafa soxla wala dama soxla lii déedéet yow da ngay gis sax nit ñi ñooy ñooy lijjanti say soxla di indi <laughs> ku jaamul yàlla perte nga <laughs> Fatiha quarante quarante sept Ikhlaas quarante sept xam nga arafu Ikhlaas yi quarante sept la Fatiha quarante sept Ixlaas 47 nga defaat Faatiha 49 nga indi sóoratu Maaona 49 balaa muy gën a am doole nag nga nekk ku nay nga nekk ku nay koo xam ne loxo bi dafa du ñëw maara dem si ma woo dimanche ñam ko rek nga xool <laughs> yal na yàlla def barke waaw. ban bi waaw ma ne yow mi nga xam ne danga nga bëgg a vivre heureux nekk ci jàmm di mucc ci feebar di mucc ci ay nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy wut ay nga mucc ci seen ay mucc seen bët ak seen làmmiñ dangay bind xaatim bi def ko saafara bésu alxamis boo jullegee ba pare nga jàng sorati yaasin boo àggee ci salaamun xawlan min rabin raximin nga def ko mille cinquante huit fois boo defee huit da ngay jang ñetti ayatul kursi nga def 80 nga def 50 nga jang ñetti ayatul kursi nga def 1000 salamun khawdar min rabbin rahimin nga def ñetti ayatul kursi nga jang ñaan gi bu ñaan gi nga jang ñaan gi ñetti yoon nga continuer sooratu yaasin wa amtazuu al-yawma ayyuhal mujrimuun alam ahdi ilaykum yaa banii aadama allaa ta'buduu shaytaana innahu lakum aduwwun mubiin wa an i'buduunii haazaa siraatal mustaqiim wa laqad adalla minkum jibilan kasiiran ndeysaan boo ba yaasin bi jeex nga jàng ñaan gi ñetti yoon gi boo jeexalee si wërd salaamul xawlan moom nga jàng ñetti yoon ñaan gi moom ngay tëjee sooratu yaasin bi voilà ñaan gi moom ngay tëjee sala euh, nu mu tuddati ñaan gi moom ngay tëje kii yaasin bi leer na bii da ngay bind aay bi 174 bind xaatim bi def ko saafara di ko sango soo jullee ba pare ngi wur fii ji di xaa 313 aay bi 174 fii ji di xaa 313 xayul xayum 313 waxal li ngay dundee li nga bëgg a dund li ngay dundee def ko fii ku ku koy wër da ngay njabot da nga am xaalis da ngay njabot ta ta ta vengeance day and ak vengeance nak sa mer yëpp yalla dina ko fajj sa mer yëpp sun borom dana ko fajj ci barki yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ngi siyaare bu baax bu fekkee da ngay julli timis ngay julli timis hmm tudati premier akaya ngay def ki Hmm. premier raka yaa ngay def kii naat <laughs> premier raka yaa ngay def wamtasi wal yawma ayyuhal mujrimun ba ca <laughs> ba pare nag indi inna anzalnaahu wala yaa xam am na solo waaw loo 47 kay dafa doy waar mais li la wax nii naafila gi boo ko bàyyiwul ma mu ne mu ne dangay ne dangay dangay def istifaar téeméer salaatul fatihi téeméer laa xawla wala xuwata illa billahil alil azim laa wala xuwata illa billahi fa nga yem nga def ko téeméer nga indi yaa xabiru 812 ba pare nga def ajib yaa xan ya iil wa jinne abiyat ajib nga def ko 111 bo paré nga jël jax lama xafan jël jax lama xafan jël jax lama xafan jël nga def ko 111 bo paré nak nga tawakkal lo ya yoonu xaliss bu graw la yoonu xaliss xaliss bu graw la jël len ko yoonu xaliss bu graw la ñaan gi nga def ko au choix yoonu xaliss bu graw assalamu alaykum warahmatullah yalla ci yalla def barke ¿verdad? Ah.